Beyoncé Afrique Beyoncé Afrique a ngi diva baa ngi nii Beyoncé Afrique ndaanaan li siggil àddina siggil Afrique jéeg bu am personnalité bu am maanaa bi sama mag sama xarit ki ma bëgg ki ma sagal ki ma teral ki ma siggil ki gën ci man ma si lay sa jeey Fatim Penn mbokkum dem Umu Njaay provocation magi Ayda Ndaxa Njaay sama waa jaa ngi nii loo am man nga ko jox loo am man nga ko may yaa ma bëgg yaa ma fonk yaa may sagal yaa may teral xoolal leen ma sama ginaaw balaa may mbëkk weñ wala may tarxis di daanu sama jéeg bi jaral ma ko policier yi ma xoolal ci ginnaaw bu ma naree daanu ngeen ne ma moytul xale baa ngi kenn man yow laa féetewoo man yaay sama star man yaay sama jéeg man yaay sama ndaanaan woykat yëpp yaa ci gën a tabe yaa ci gën a yëwén yaa ci gën a riis yaa ci ëpp maanaa yaa ci ëpp fulla Viviane sewuloo Viviane iñaanuloo Viviane soxoruloo Viviane doo baadoola koo àndal téye nga ko koo àndal sagal nga ko man da nga maa bëgg loo mësa man nga ko may loo mësa man nga ko terale saa boo ñëwee Gàmbi compte mille dollars jox ma yal na yàlla guddal sa fan yal na sa njeek yegg yàlla bu noon mën ci yow dara yàlla bu sa noon kontaan masere